يسمن الله عند جولي إبليس إسناد ديته بيا ولي أيسمن الله عند جولي ñi ngi ak euh, kenn koo xam ne si nii euh, taalibe ci kër gi la muy euh, kër Cheikh Béthio ñu fekk fii ci nag yi dañ koy bàyyi mu daal di présenté wu ñu soog a jàll ci waxtaan bi ñu ngi lay nuyu sëñ bi nga nuyoo joxe tuñ tur bi. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax di leen baalu àkkate di leen ndokkeel waaw man la Badou Guèye jëwriñ Touba yëmbal jàkkay ndawet nekk fii si nagu sëñ Béthio yi. comme ni ma ko daan defee. acci mi noonu tey gis nañu comme ni ngeen ko daan defee ni ngeen ko doon defee at mu ne nag yi bari nañ gëléem yi bari nañ daanaka foo xool rek nag la gerte gi amul euh, fu muy yem euh, ndax man yu ñëw tey ci euh, li nga xamante ni moom mooy distribution bi na nag ngeen koy defee fii ci gerte gi. waaw mooy comme ni ñu ko daan defee rek bi fii seex bii ne waaye fi mu toll nii moom macha allah sëñ Saliou fi ne. ñu mm-hmm. koy defee. si na raw nañ ko daan defee maanaam ñu ngi yor nag yi jële leen ba kiifa ñëw jaar si dex bi indi leen euh, doxee euh, woro Issa ba Medina Njaañ yàpp leen si camion yi indi leen fii waaw bu ñëwee ñu agsee ba fii nag dañuy dàq dugg si Touba janatu bu ñëwee ba jannatu si nañu commencé di jëflante ak ak ak ak nit ñi mooy ñi nga xamante ni seex bi dafa am dafa warlu woon si boppam ne daf leen am jox nag lu doy na néeg euh, ñoom euh, sëñ taxa sëriñ seex sangam bi ak waa kër euh, sëriñ Saliou yëpp ñoom sëñ Bas ak kilifa yi nekk si Tuubaa gi yëpp ku nekk da leen ku nekk da leen di jox nag. waaw ñun ñenn ñu si ne dañ leen di jox nag. mais tamit am na ay ay daara comme ni ngeen koy waxee yoo xam ne si dañ koy samp eh, ci Touba yëpp ak li ko wër ngir man di def foofu ay bernde di eh, bernde nit ñi ñoom tamit ñu xam ne ci màggal gi la ñu bokk surtout ñi nga xamante ni dañu nekk ci ci ci ci biti maanaam eh, maanaam dañu xaw a sori trop ak jumaa ji. dëgg la waaw mooy sancaan yi. Mhm, sancaan yi benn bu nekk dana am fukki nag ak ñett ñu jox leen ko. moom la ñuy togg foofu si sanjaan yi ndax yittey sëñ Béthio yëpp loolu la woon kii fi nekk nag muy sëñ Saal moom taxawaayam yëpp mooy sanjaan yi ndax sanjaan yi mooy màggal bi du ñu nekk si biir Touba ndax biir Touba lekk gi doy na naan gi doy na waaye am na ñoo xam te bëgg nañu màggal te gisuñu ku leen jàppale si la sëñ bi nag di teg ay waañam si gox bu ne si biir dëkk bi ak si gannaaw dëkk bi yëpp def ay ay ay ay ay waañ yoo xamante ni macha allah yu confortable yoo xamante ni danañ leen jox ñu lekk ba suur ba mu des waaw macha allah waañ ngeen am waaw man nag euh, du ma tudd li mu waañ yi ndax du sama dayoo si lii nga ma fekk daal laa moom la ma si lu ñu ma si laaj ma wax. mën nañ xam li nag yi nag yi ren ñaata la ñu am ñaata nag la ñu. Serigne Saliou Thioune indi Touba. yee ren dañoo jënd. Mm. bi ñu amee 1000 sëñ bi dañoo fekk ci Mauritanie. 1000. bi ñu amee 1000 daf ñoo fekk Mauritanie génnewaat 100 teg si si table. 130 130 millions. 130 millions tegaat si table ne nañ dolli. kon lim maanaam toll ci ñaata ay 2000 wala ay 3000. waaw xam nga lu ñu euh, ay mbir la yoo xamante ni. la ñuy sante yàlla la. cant cant nag des ngay mel ne kuy ndam. Mhm. waaye mu nag yi moom mënuma ko wax franchement waaye daal xam naa ni macha allah bari na bari boo xamante ni ñun ñu ko yoroon si àll bi Mauritanie ba fii xam nañ xam nañ ñu mu toll. waaw mais yow ngi ci yaa ci gétt gi. yàgg na. <laughs> waaw waaw <laughs> fii laa xàmmee. fii daal laa xàmmee waaye daal xam naa ni. sama ràññeeku sama si kanamu Sëñ Béthio. 2003 la. 2003 2003 laa tër benn gëléem. mooy cant gi muy doom def euh, Mermoz ba falu Dieng jëlee si clip ba ku yëngal jamono seex Cheikh Béthio yëngal jamono waaw boobu nag si laa ràññeeku ci kanamam ndax. Euh, sër gëléem doom si def melokaan yoo xamante ni macha allah. <laughs> moo tax foofu la foofu la tur ba jógee sax. muy ba muy balu gël balu gëléem li bëri di wax balu gëléem. Euh, lan lu tax nga taamu ci gëléem. lan nag yi ñu ngi fi ak yeneen yow taamu ci gëléem lan la. waaw man nag bu doon sama sago. Hmm. danañ ma tuddee mu Serigne Saliou wala mu seex Béthio te am na ñu may woyee noonu waaye waaw waaye sëñ Béthio moo ma xool ba seppali ma dane ah waa kii de moom jàmbaar la si yëf yi mu yéen kii mooy kan ak nu mu ndawtee nii gars yi na ah, moom de ah, badu la tudd waaye bi bi mu jébaloo yaa ko booleeg joriñ adara mu ne ah kii de mën na gëléem gaa yi nag di naan ma Badou Guelem waaw macha allah waaw moom mu tuddee tur woowu moom macha allah. solo mais bu ngeen di jiital nag yi di dugg Touba ngeen gis eh, nit ñi ni ñuy génnee gis ñii di yuuxu affaire lan lañ leen di def ak ni nit ñi di génn daal di leen teertu kontaan yéen lan ngeen lan ngeen di yëg. bu boobaa bu dee man dama par nga xamante ni man may diriger bopp nag yi man maay jiitu di dox nag yi topp si man man la ñuy xàmmee diiraa ñu nekk si àll bi ba bu ñuy agsi fii. loolu yëg-yëg boobu kenn mënu laa wax nu mu toll si àdduna mbégte boobu si xol amul amul yamukaay parce que tey boo doxee nga dégg yow mi jiitu nga dégg ku ne yuuxu tudd sëñ Béthio ak nam meloon si ñun day toll moment boo xamante ni yow dootoo dootoo nekk waaw macha allah. tey tey comme ni nga ko waxee Serigne Saliou Thioune ndigal moom moo fi nekk eh, di doxal loo xam ne si lu rafet la ci ndigalal eh, mun taxa eh, tey boo koy gis lan lan la lay def tey boo koy gis ci ci seen kanam. ndam te Cheikh Bacca ci ci Zahir nekkatu fi noo koy xoolee. ndam fit fula ak jom ak dëggu Serigne Saliou Thioune ndigal. mooy nangu noppal sëñ Saliou kenn du wax si moom dara dara ndax kenn amul loo mën a wax si moom ndax fit bii muy doxee ñi àndoon ak moom démb am ko tey xam nañ ne kii li nekk si moom cër bu yàlla la sëñ Béthio ba mu ba fi jógee la newoon ca moom da ko yóbbu kay liggéey ba téewaat loolu cër bu yàlla rek ay nekk si yow sëriñ Saliou Thioune ndigal mii cër bi yàlla rekk wàcc si moom mooy ni ko euh, Mouhamed Niang waxee woon ci euh, ndogalu yàlla daa wàcc si moom moom la cër bi yàlla moo wàcc si moom moo tax muy doxee nii muy doxee kenn mënul wax si moom dara dara dara dara dara barki Serigne Saliou ndax dëggu bi nekk si moom ak fit ak ragal yàlla bëggul dara alal jàmbur bëggul dara dara dara lu dul liggéey bii fi waajuram bàyyi liggéey wu mag bii mu doxal ko mu jëm si kanam ñu ngi ko koy ñaanal te yéene nañ ko ko. nga nga jëf sa kàddu boo tàggatoo rek ñu daal lay bàyyi xam naa ne liggéey bi bëri na. xam santaar rek di santaar bu baax a baax ndax tey man mii jàppoon naa ni sax damay damaa ndo ngërëm la ma sëriñ sëriñ sëriñ Saliou defaloon si si ma digganteeg sëñ Béthio dama jàppoon ne damay dem toog noosoo ko di sol yére di ñëw di sukk di raam sëriñ Saliou Thioune ñëw sama baay bi muy ànd ak yéen lenn rek la doom la leen doom def ay ginvran la ñu woon dañoo naawal ba ca kaw bañu fa la ñuy àggale nag ñoo koy def Serigne Saliou Thioune nag dafa ñëw fekk ñu foofu foofu ñu baaja baayam ba tegoon mu jàll ñu fëkk gën a kawe ñu ngi koy ñaanal sutura ndam mucc ak sax si liggéey bi yàlla nañ ko àndee may ñu wir may ñu kàttan si barkeb Serigne Saliou may ñu fan bu gudd ak wér gu yaram ndax xam nañ ne liggéey Serigne Touba bi moo ñu koy jox ndax la gën a màgg ci cant gi mooy lii ndax ku ku ku ku rendi wut doo bernde waaw comme rend gi nag moo jiitu bernde dégg siy tegu kon ñun ñi nga xam si ñoo féetewoo yooyu ak cant rek lañ si lañ si lañ siy dolli di ñaan Serigne bi mu yàgg fi te ànd ak wér. ci barkeb Serigne Saliou yéen it ñu ngi leen di ndokkeel te di leen ñaanal seen site bi yàlla na gën a kawe yàlla na ngeen si ëpp ndam si barkeb Serigne Saliou ayasaminillahu inda jawali iblisa isnat daytahu biyawali ayasaminillahu inda jawali